Bienvenue sur Salam Vision. ci yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi ay maqaama yàlla su may def du ma xalaat duma dara dama gëm yàlla jinne àdduna yi nangul ma su dee man Karamba mos naa faj nit sol ko jinne yoof laa nekk di wax de yoof su dee gis nga ni may faj par jour ñaata nit laay faj su dee man Karamba yow yàlla yaa ngi may dégg yow yàlla suñu borom su dee man Karamba mos naa faj nit sol ko jinne wala man Karamba ma faj kompaloog benn malaat wala ma teg ak dil nit ci sama côté liggéey yàlla bu ma àgg mbuur xam-xam laay wone bañ naa ko ba sama kër boo indee malaat du ma dugg si mbaar du ma dugg si ruq yow mi ko indi say tànk laa koy faje buy wér fi lay wére boo jël traitement fa la ko jële man liggéey duma ci si man liggéeyuma ay gàllaaj man liggéeyuma ay bind ak ay maas loolu dafa yàgg mais am nga jour yooyu liggéey ak dul liggéey wala jeudi laay faj samedi ak lëndi yeneen jour yi ci des yëpp dama bari lu may liggéey dama yor ay gaal yu dem géej ñaata gaal ba Nouadhibou amul fu ma yorul gaal ba Kafountine ñaata équipe bu football laa yor ñaata équipe bu football laa yor football. Karamba mooy le roi du ballon xanaa xamoo Karamba kese mooy taxaw senegal di football ñëpp jaaxle mu leen tey temps de bal lay dugg. Karamba da ngay liggéey ak basket. senegal maa ko jël fii Dakar ville de Dakar maa ko jël Gali. mu ngi sama téléphone li may wax waa ville de Dakar dinañ ko déglu coupe du Sénégal maa ko jël ville de Dakar vidéo yaa ngi sama téléphone yaata njaay na ñëw won leen ko mu ngi si kër gi après nga seeta après nga jël vidéo ñu won la ko maa ko jël waxal leneen damaa jël coupe jël mbu fi ma dëkk jël naa zonal mënuma ko wàññi jël naa communal mënuma ko wàññi jël naa coupe départemental mënuma ko waññi jël naa régional mënuma ko wàññi jël naa phase nationale mënuma ko wàññi jël naa coupe du Sénégal benn yoon coupe d'Afrique coupe d'Afrique gannaaw yàlla suñu borom bu dee fii Sénégal ñu ne si cadre mystique la kese ñu jël yàlla tega ko ne ñu ne si cadre mystique la cadre Serigne Karamba moo ko jël. te ne woon naa leen jël naa coupe yëpp coupe d'Afrique moo ma dese dama koy jël. bi ma jëlee coupe d'Afrique ba tey neew ma leen damay jël coupe du monde mais am naa gëm-gëm bi. man nga ma ne mën naa ko jël mais am naa gëm-gëm bi. xam nga nit ku gëm boppam. tàmbale nga si ñaan. tàmbalee ma dara parce que dama liggéeyal Sénégal ba Sénégal bi sëriñ ñaat sëriñ ñoo ne woon Sénégal di jël coup d' Afrique ñëpp laa saaga ñu ne damaa réew. dama liggéeyal Sénégal ba Sénégal jël coupe d' bi ñu demee Égypte nu ñu dóor leen boobu pare woon naa si mat yi sax. damaa defaat vidéo saaga sëriñ yooyu ma leen owaat leen seen bàyyi karamba ma xaaraat leen jam ñaajo ma defati jaloore boo duggee internet àdduna yëpp seetaan nañ ko. bi ma xëyee fédération Sénégal woo ma buñ ma xëyee luñ ma wax ñëpp nee nañ nañ oo ka ool karamba ool karamba ñu ma oo ñu ne ma karamba waxal ñaata lañ lay fay si xaalis man leen bu ma kenn fay dara vidéo yaa ngi si YouTube bi YouTube bi du fen mm-hmm. bu leen ma fay dara man sénégalais laa yow mi ma oo sénégalais instant bi équipe bi lang na buñ ko dóoree rek du dem coupe di monde te dara gënul ñaaw nga jël coupe d'Afrique manoo dem coupe du monde nga dem fee ñu dóor la benn match biñ ma oowee noonu damaa xëy defaat vidéo xamalaat Sénégal yëpp ni équipe nationale bi ñëpp woo nañ ma laaj ma luñ may fay man leen bu ma kenn fay dara bu ma kenn fay dara maa ne woon nañ ma ko comme woo ma man leen bu ma kenn fay dara léegi man Sénégal man maa jël charge boo xam ne match bi benn bii la tamaa koy dugal maa indi gërëm baali jam ñaajo mu jot ma jël sama financement sama xaalis ëpp cent mille génn ko ay sarax jël sama oto sol si essence dem ñaajo yëngal ko ba may dalanteeg gendarme yi ñëpp seetaan nañ ko Mhm. Macky Sall moo mujjee woote ay gendarme ñoo mujjee jël si. Mhm. escorté ma si laa daggee sama loxo bii. gendarme yi ñoo ma yóbbu ba fay ñëw sama loxo bi band ko benn band man leen lii ñaata la ñu ne ma cinq baaraam man leen ba ñaata baaraam lañ ci band ñu ne benn man leen benn bii la koy dugal daam la la fekk. Mhm. bi bu rombee 10 minutes kaa ngeen jël si ma fu leen neex yóbbu leen ma. Mati bi mu démarré man leen taal leen seen téléphone yi bala leen bii bee raw moo ma fi indi buy dugg may dem. trois Égypte bi gaa yi demee fee xaw ma Égypte ñoom seen bal 4 minutes lañ ko dugal 3 minutes laa yëngal mbaali ñibbi. gars yi di wax ma leen damay ñibbi match bi série la jëm sama kër laa série te dañ ñëwoon benn bi mënu gagné Sénégal léegi Sénégal kalifi na coupe du monde est-ce que jox nañ ma 100 francs kon mënatuma mënuma wax dara si coupe du monde. ana sëriñ ñi nga xamante ni ñoom lañ daan jël xaalis Sénégal di leen ko jox ñu koy lekk amul kenn ku si mën a dalal benn xelu sénégalais tey Sénégal di football nga taxaw ne ko tey temps de balle dugal te dañ koy confirmer man maa mës a dig Sénégal 2 bi def ko vidéo àdduna yëpp seetaan ko bi mu jotee dama kaa dugal man maa mës a dig Sénégal 3 bi ne leen mat te bi njaax jaaxle laa koy defe de 3 bi te bi mu jotee dama koy dugal avant bi mu jotee dama dugal bali ñu ne dama koo tànn man leen bii di ñëw damay dugalaat trois bi muy ko d'Afrique bi. Mhm. dama koo tànn ñu ne ko bi di ñëw man leen dama koy jël. Mhm. li ma dig Sénégal ci ay bii yëpp amul bii bu duggul ma ëpp ay vidéo ci sëriñ yi nekk fii te amul benn vidéo bu dem VAR la moo tax waa VAR du ñuy wane samay vidéo nañ ma VAR. merci exactement fa laa bëggoon a ñëw dañoo soxor nañ ma vaar man jamais VAR tous. man la man Messi man TikTok maa ci ëpp vidéo YouTube kenn ëpp ma ci vidéo Instagram kenn ëpp ma ci vidéo li may def man may taxaw di faj live en direct man maay sigg xool nit nga arrière ba ni këlëb te du ma la laal yàlla kese su ma neexee ni may ni ngay waxee nii may gën a aalu nii di gën a tàng su ma neexee tey ma toj yoof xanaa xamoo ma yow noo koy tojee barki Seydina Muhammad li ngay wax nii boo waxee ba ma gën a alo fii di nga dem ba bëgg ma génn dëkk bi mu lay të. ah déet kon nag bàyyi 600 nangam 1000 taalibe jënd na laay te commencé nañoo escorté. kon mbokk yi Messi ngay waxal Messi bul taxaw taxaw taxawal ah. taxawal rek man ngay waxal man. damay bañ bañ bañ a génne. non non taxawal lépp. si jàmm lay lay lay ndox. alhamdulilah si jàmm lay mujj parce que man la. Ah. man la ñuy déglu man. man ñi may àndal dama leen tàggat si lu baax. comprendre nga. dama leen tàggat su lu baax. lu baax li ma leen tàggal moo tax fuñ fuñ mënti dem jàmm la ñuy def moo tax à chaque fois damay jàll benn communication ma leen xam-xam du xeexukaay chaque jour gis ngeen TikTok bi des fois nit tooñ ma wala YouTube xoola mën naa la toroxal mën naa dugg ni may duggale bal si kan barki rasulullaay mën naa làqatu léegi teg la loo xamante ni say mbokk dootuñu yer jariñu si yow si àdduna barke Serigne Fallou say mbokk doon njëriñ si yow mais boo def loolu boo koy dund si àdduna yàlla day wàññi sa xam-xam yàlla day wàññi sa pouvoir parce que yàlla joxu la xam-xam bii pour nga koy xeexe yàlla dala jox xam-xam pour nga siy dimbali doomu aadama moo tax ma leen xam-xam kenn du ko nëbb dañ koy weer boo déggee ñu la diw am na xam-xam te du te weeru ko xamul dara. sax moo fa ne insister si xam-xam bu xeexukaay vraiment parce que dëkk bi dafa yàqu xam-xam bu doon xeexukaay heure bii boo ma laajee dama la naan rey naa 73 personnes. bàyyi kuy jàpp jinne di jàpp dëmm doomu aadama da laa jaaxal. Ah? xam-xam bu doon xeexukaay kon heure bii boo ma laajee dama la naan rey naa 73 personnes man. am na 73 loolu tooñ nga baal leen. dama leen di ñaanal boobu ñu gën a yokk parce que xamuñu. après ku ci xam sama gaañ ngay mujjee doon parce que xamuñu ma. man xaw ma leen man nit kese laa nit ku dal laa nit koo xamante ni xam nga fu ma fu ma yàgg nit moo ma fa yàggal mais nit kuy wax si nit te xamoo ko kooku ñàkk a xam la. ñàkk a xam la bu la xamoon amaana sax bis mën na toog ba say tànk sax mu sëgg rus di jooy. Mhm. loolu ñàkk a xam la yàgg ngeen ko gis gisatu ko moo tax. nit du def dara rek wala mu tooñ la wala benn affaire nga ni xaaral ma xeex ak moom si baatin pourtant koo ngay xeex ak si moom si baatin mën nga ko lor ba ëllëg après sax xarit lay doon boo xamante ni tey lépp lu ko dal yow da ngay toog di jooy. moo tax xam-xam du armu maa ngi koy dénk yenn sëriñ yi yor xam-xam laa wax parce que Sénégal dafa bëri sëriñ yoo xam ne dañuy bëbboo xam-xam xamuñu dara. Sénégal yenn xaaju sëriñ ñi ay duulkat lañ ñi xamuñu dara ñii dañuy yor seen xaalis kese lañ yor dañuy fekk journaliste fay la kaay waxal ma nga wone ma parce que geste bii laa bëgg a def ak bii ak bii boo ko wonee après gars yi dinañ xaw a apprécier tuuti ma man si dóor benn weccet wala benn affaire yow moomu yow journaliste boobu dàq kaa dugalati. yaa ngi dégg nga ñëw ñu fay la xaalis xaalis boobu ñu la fay sëriñ bi duul yow journaliste bi nga duulaat boo ko boolee muy duubul duul. yaa ngi dégg léegi boo leen boolee duubul duul sam ko si YouTube bi. saam ko TikTok bi saam ko Instagram doomu sénégalais yi yéen ay doomu sénégalais ngeen def ko doomu sénégalais yi di ko seetaan ngeen di use seen mémoire yi moo tax damay bëri ay noon man sëriñ yenn sëriñ duñ ma bëgg di teg nit ñi ay dil di lekk seen xaalis xoola senegaal fii Sénégal. fu sëriñ dawe yaa xam Guinée yaa xam Mali yaa xam Fuuta yaa xam foo manti jóge boo dëkk boo jógee da ngay daw duggi Dakar ni dakaar moo ëpp xaalis da nga naan man jàppewu ma kam xaaral ma liggéey Dakar de xaaral ma dóor dóori marto dakaar ngay wax parce que Dakar ñi fi nekk ñeen dañoo gëm sëriñ moo tax xaaj bi da ngeen a dóora dóora dóora dóora dóora benn sëriñ toogatul sa dëkk di duul laj dëkku jàmbur yi la ñuy dem di fen rek di fen rek di fen rek di fen rek dama bëgg ñu def ni Karamba di def l'enfant de Petite Côte bi sëriñ dëgg da toog sa dëkk ñii dagg bii avion di la fekk ci barkeb say xi fàddilu mi yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil yàlla dolli ilaahi ci barkeb say xi fàddilu mi yàlla dolli Bienvenue sur Salam Vision.